beneen nit muy Aminata Touré moo tax certains sénégalais peuvent se dire rapidement que PDS souvent day am nit yoo xam ne liñ dund dañ koo jàpp. non attends bu ñu bu ñu confondre bu ñu confondre Aminata Touré mënul nekk ci li mu nekk ba le 12 septembre. Mhm. ngeen xëy la 13 septembre bëgg ko effacer totalement tuubu njaago du sotti <laughs> mënul nekk Aminata toure ñun waxuñu ko dañu ne jotuñu moom dara. mais am na lu ngeen ko jàppal. du non jàppaluñu ko dara il faut nga déglu tuuti moom Mohamed xam nga Moussa comment il s'appelle Modawa. Mhm. ñun ñoo indi loi bi nga xam ne nit boo démissionné sa partie nga ñàkk sa mandat waxul assemblée daa la da nga koy ñàkk ñun mënuñu ko indi voté ko def ko ci suñu constitution ba tax transhumance su député amatul ñu jël ci ñaari nit ñu génn assemblée bi ci loolu ñun ñu def ko ba pare ëllëg di weddi suñu bopp gis nga ñun. mënuñu weddi suñu bopp du suñu cër mën nañu juum. y a aussi le front de l'opposition waaw même tuuti rek ci loolu parce que bu duñ ko évacuer noonu mais moom yéen yéen a dem ci moom ñun fekkewuñ ko mu wax ngeen indil ñu waxam mu ne moom ci affaire Karim Wade jël nañ ci deux cent milliards de francs récolter nañ ko du fekkee nga ko. Mhm. dégg nga ko waaw mais yow. yow yaw da nga waroon bés bu nekk sax ngay laaj Aminata saa yu ko gisee. ne ko mais Aminata ana xaalis bi. mais yow comme yéen bugg leen ko laajal Sénégalais yi intéressé wu leen xamuñu lan ngeen ci am ak loo leen ci xam mais ñun ñu am droit ne ko ñun xaalis boobu àla kuliyaalin di nga ko génne mañ ko am na ñaar ñu ko weddi ministre de finances moo wax ne gisuma xaalis boobu bu moo ko jotoon def ko loi de finances rectificative président assemblée nationale su ko jot donc nañ ko dépassé amuñu dara contre moom mën naa am nag ëllëg c'est possible am na ñaar dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu participer ci détention arbitraire Karim Wade. Mm-hmm. looku CPI tribunal pénal intérêt ñooñu ñoo koy régler. d'accord loolu bés na yow du suñu du suñu xeexu tey. dañ mm-hmm. ko teg fële mais loolu la amee nañu ko dara. amuñu aucun problème ak moom ndëgam parti yi dafa mel ne tey fu mu jaar du ngeen fa jaar. non attention yaa ngi bëgg a wax loo xam ne benn jaar jaar la jaar. jaaruñu fa am nañ ci sañ-sañ. muy ban rappelé waaw benn sañ-sañ mooy bokkuñ ci loolu. Mhm.